dafa bàyyi ci bàyyi ko ci sëriñ bi ci ñoo xam ni dañ di ay bokkam ak i wóllëre fekk ko ci bis bi naka jekk di ko ànd ak moom mu am yëgug nag saa buñ teewee fii ñooñee mu ñu fas yéene rek jukki ci ñennat ndax ñëpp sax mu ne suñu lim ndax waxala fi ne ku lim juum waaye kon ñu fas ko yéene def ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mahfous di ñaan suñ borom bàyyi ko fi te mu yàgg koo taxawe nu yàgg koo ànd ak moom kilifa yooyu sëriñ Ahmadou Badawi Mbàkke moom sëriñ Fallu sëñ Alhaji Fallilu Mbàkke moom sëriñ Ibrahima Mbàkke moom sëriñ tuuba ànd ak sëriñ Cheikh Wilaya Mbàkke taawub sëriñ Daam Atta ak i rakkam sëñ Ateex Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla diiru bi sëriñ bi nekkee fii ci aslem bis bu ne mu ñëw fi yendu fi ànd ak sëriñ bi liggéey bi muy sëriñ Cheikh moom sëriñ sëriñ Ateex moom sëriñ Cheikh Awa Balla sëñ Moustapha Mbacke taawub sëriñ maam Mor moom sëriñ Fallu moom ñëw na fi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ñu gën koo miin ci turu sëriñ Cheikhum sëriñ Saliou yable na fi doomam ak ay teraanga yu bari sëriñ Ahmadou Muxtaar Mbàkke Daarul Xuddoos yabla na fi doomam jarbaatam sëriñ Moodu Xabaan Mbàkke ak ay teraanga yu bari sëriñ Seexuna moom sëriñ Xamsatu moom it ñëw na fi sëñ Moodu moom sëriñ Basiiru Anta Ñang moom ñëw na fi sëriñ moom sëriñ Abdul Xuddoos ak sëriñ Fallu moom sëriñ Mbàkke Soxna Lo sëriñ Sidi Mbàkke taaw maam Cerno moom jëwriñu liggéey bi la te di ko ko taxawe moom sëñ maam Thierno moom sëñ Cheikh Awa Balla sëriñ Ahmadou Sougou moom naka jekk waxtu wu ne mi ngi fi di ànd ak sëriñ bi liggéey bi sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abdul Fattah moom sëriñ Fallilu sëñ Seexuna Mbàkke moom sëriñ Fallilu sëriñ Abdul sëriñ Mouhamadul moom sëriñ maam Thierno sëriñ Moustapha moom sëñ maam Thierno soxna May Mbàkke moom sëriñ Cheikh Awa Balla sëriñ Xaadim Ka sëriñ Mouhamadan Bousso taaw sëriñ Abdou Samad Bousso ak i rakkam sëriñ Abdul Xaadir Bousso sëriñ Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Modou Kara sëriñ Mamoun Bousso imaamu Jumaay Touba sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Fallilu ambassadeur sëriñ Makhtar Diouf doomi président Abdou Diouf mi fi newoon di ab taalibe waxtu wu ne lu xew ci sëriñ bi mi ngi fi di ko ànd ak moom ànd naa ko njabootam teew fi ci sëriñ bi ak i teraanga sëriñ Xaadim Mbàkke sëriñ Moodu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad sëriñ Moussa Ñang moom sëriñ Saalihu sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xuddoos délégation sëriñ Moodu Roqeya moom sëriñ As Gede ànd ak sëriñ moodu Mbacke moom sëriñ Sidi ak sëñ Basirou Sylla tey ba xabsu sëriñ ma sëriñ Mouhamadou Ngaabu moom it waxtu wu ne mu fi ñëw di ànd ak sëriñ bi liggéey bi sëriñ Xamsatu moom sëriñ Abdoul Ahad délégation sëriñ Moustapha moom sëriñ Sidi Mokhtar sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Modou Awa Balla sëriñ Fallilu Mbacke teewal na fi sëriñ Mamoum sëriñ Mamoun moom sëriñ Fallilu sëriñ Moustapha moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma sëriñ Cheikh Coro Mbàkke moom sëriñ Basiru Xujjaña Xujja Jeng sëriñ Xaadim Mbàkke docteur moom sëriñ Moodu Aw Balla sëriñ Aliyu Mbàkke moom sëriñ Fallilu sëriñ Murtada moom sëriñ Fallilu sëriñ Ahmadou Rafaayil moom sëriñ Fallilu sëriñ Cheikh Ngaye Mbàkke teewal na fi sëriñ Cheikh Bombali sëriñ Cheikh Awa Balla Joxaane teew na fi ak mbooloom ànd ak i hadiye yu am solo sëriñ soxna may Maymunatu Mbàkke moom sëriñ Murtada sëriñ Cheikh sëriñ Xaadim Ñang moom soxna Ami Cheikh sëriñ Moustapha Mbàkke taawub sëriñ Basiiru moom sëriñ Fàllilu soxna Maam Faati Mbàkke moom soxna moomi sëriñ Jiili moom sëriñ Abdul Xuddus sëriñ Moodu Mahfuus moom sëriñ Moodu Busa Jeng délégation sëriñ Yuusu Jóob waa daara Hizbut Tarqiyyah ñëw nañu fi ba sànq rek njàng mu am solo mi mu yabal leen ñëw doon ko taxawee di ko taxawee ci guddi gi sëriñ Abou Mbacke taawub sëriñ Sidi sëriñ Ahmadou Mbacke moom sëriñ Modou Bousso délégation ma Madické Niang maam Thierno Niang moom sëriñ Ndëkk Niang sëriñ Moustapha Mbacke taawub sëriñ Abdoul Fattah Gaynde Fatma sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Abdoul Ahad délégation Moustapha Kebe ak Mbaalo Kebe doomi Alhaaji Njugo Kebe ñoom ñëw nañu fii ànd ak seeni teraanga sëriñ Basiiru moom sëriñ Fallilu Asta Jeey sëriñ moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Basiiru moom sëriñ Xaadim Awa Ba ànd ak sëriñ maam Cheikh Mbacke sëriñ Abdul Ahad moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Siidi moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Moustapha Massamba sëriñ Abdou Rassakh moom sëriñ Moustapha Massamba sëriñ moom sëriñ Mahmoudan ak i rakkam sëriñ Fallou ak sëriñ Abdoul Ahad ak sëriñ Baara délégation waa kër sëriñ Bàcc Mbeng njiital sëriñ Mor Mbeng teew nañ fi ak ay teraanga yu bari sëriñ Fallilou moom sëriñ Tàkko moom sëriñ Fallilou sëriñ sërif mbàkke moom sëriñ fallilu yebal na fi ñaari doomam sëriñ fallilu ak sëriñ moodu buso sëriñ seex coro mbàkke guy mbind sëriñ seex moom sëriñ abdul xaadir sëriñ xabibu moom sëriñ abdul xuddus sëriñ moustapha moom sëriñ alhaaji baara sëriñ moustapha jatara daaray kaamil sëriñ moodu xabbaan moom sëriñ moodu buso jeng moo fi teewal sëriñ ahmadul muxtaar xalifa daarul xuddus sëriñ Koso Mbàkke xalifa sëriñ Moustapha Habsa délégation sëriñ Amdi Khadi Fall ñëw nañ fi délégation sëriñ Modou Aminta Fall ci turu sëriñ Falilu Fall mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Modou Aminta yabal na fi ay ndaw ñoom ñëw nañ fi sëriñ Moussa Mbàkke moom sëriñ Mourtada sëriñ Xabbaan Mbàkke moom sëriñ Mourtada sëriñ Yuusu Mbàkke moom sëriñ Mourtada sëriñ Moxtaar Mbàkke moom sëriñ Mourtada sëriñ Hamidou Mbacke moom sëriñ Mourtada sëriñ Moustapha May Mbacke doomi sëriñ Cheikh Astou Faye sëriñ Cheikhouna Mbacke moom sëriñ Modou Habib sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ euh, Mansour Mbacke sëriñ Mourtada sëriñ Mourtada moom sëriñ Cheikh Say Alhaaji Abdoul Asis Ngom moom it sëriñ indina na fi ay teraanga yu bare sëriñ Mansour Ngom moom sëriñ Saalihu andi na fi teraanga yu mat sëkk alhaji cheikh mbàkke alhaji cheikh mbàkke sëy di prom yabal na fi soxnaam ak ay teraanga ak ay ak ak alhaji omar si député yabal na fi ay ndaw ak i teraanga ministre omar sarr dikk na fi ànd ak ay teraanga ministre soxna awa Diop dikk na fi ànd ak i teraanga sëriñ moustapha mbàkke moom sëñ muudu muxtaar sëñ Abdul Xuddus moom sëriñ Modou Muxtaar sëñ Sidi Ahmadou moom sëriñ Modou Muxtaar sëriñ Modou Muxtaar Mbàkke moom sëriñ Xalil euh, sëñ Xalifa sëriñ Mouhamadou Muxtaar sëñ Cheikh Abdou Silla soxna Faati Mbàkke Muxtaar ak ñi mu àndal Assane Dia meeru Bambey dikk na fi Papa Souley Sey ak waa këram ak Alaaji Masamba Sey dikk nañu ànd ak Abdoulaye Sylla Mouhamad Kassir Liban Assane ja meeru Bambey kon ñooñu mooy ñi nga xam ni moom la sëriñ bi waxoon ni nañu leen jukki ñu xam ni ñëw nañ fi ci ñenn nag ñiñ ci mën a jàpp ndax ñëpp sax xam naa mënuñu leen a tënk ci ci ci ci ci tudd leen waaye da cee jukkat rekk ci ak yëg boo xam ni nii am na ko digganteem ak i bokkam ay bokkam am nañ ko ci moom te wax wax ku ci ñëw xamal ko ni ko bis bii noo ko bokk da ngay koo jiite rek waaye lépp lu luñ ciy def noonu la war kon noo ngi koy ñaanal mu gën fi yàgg lool te mu ànd ko wér mu yàgg koo jiite moom Cheikh Amadou Mahfouz li ci dolli ko mooy daayira yi daayira yi daayira bi nga xam ne moo nekk daarul manaan sëriñ Jaga Fall jiite ko ak waa daarul waxaab ak dëkk yi wër daarul waxaab ak Touba dëkk yi leen wër ñoom ñëpp taxawe nañ ci liggéey bi ak yeneen daayira yoo xam ne ñu ngi ci yeneen i barab di soppee soxna may sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax gis na liggéey bi taxawaay bi nga xam ne taxawe nañ ko ci ci lépp rek ba lépp mën a matale ndax gan ñi bu ñu xësee ñëw topp toobeeg lépp ñii dañuy féete fii ñii féete fii kon sëriñ bi nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñu yàgg koo teewe te lépp lu ci waay soxla ci guddi gi yàlla na nga ci dajeeg ngërëmul suñu borom mu defal la ci lu xa lu kawe sa njort te ñaan moom it suñu borom gën ko fee bàyyi te bàyyi nu fi mu yàgg jiite ñu yàgg topp ci ginnaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ilahi lmujibi dil qadar man xassana fadlan bi leylati lqadar muaziman li sha'niha fi ddahri xatta gadat xayran min alfi shahri summa salaatu wa salaamu abada ala alladi xayri albariyati bada muhammadin wal aali wa saxbi alkiram ma zafara daaci bi afdali maram noo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci sant suñ boroom mi ñu xéewale ñu fekkewaat bis bu tedd bi bis bu màgg bi nga xame ne ni ko cheikhul xadim waxe suñ boroom moo ko jagleel ummatu rasulillahi sallallahu alayhi wa waaye di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan suñ boroom yokk ci moom xéewal ak mucc moo képp koo xame ne yoon wi mu xàll yaa ngi ciy jaar dañuy jël kàddu gi rekk ci suñu turu kilifa Cheikh Mouhamadul Mahfouz nga xame ne liggéey bi yépp daf ko jébbal jëwriñam Cheikh Abdul Ahad te ma koy taxawee nam gën a rafete te loolu ñépp teg nañ ci seen bët kàddu yi nag kàddu yoo xamee ne day jëm ci ngëneelul bis bi ak lan moo taxoon soxna mënatu Mbàkke tànn ko ngir dikk ci liggéeyal waajurum wa tedd na Cheikhna Ahmadul Xadim ak naka la ko daan màggale bala ñoo tàmbali waxtaan wi dañuy yëkkati ay cant di ko jëmale ci képp koo xamee ne bokk nga ak ñun bis bi di ko màggal jàppale nga ñu ci ndax ku ne xam na ne bis bi bis bu màgg la ci suñ boroom ndax suñ boroom ci jëmmam moo ko màggalal boppam ndax dafa wàcce aw saar ngir di ci leeral ngëneelul guddi gi inna anzalnaahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayru min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlaci alfajr suñ boroom nee na maa wàcc alquraan ci guddi laylatul qadr nee na laylatul qadr moo gën junni weer bokk na ci ngëneelam ci guddi gi malaaka yi dañuy wàcc te ko nekk seen bopp mooy naa Jibril waaye bokk na ci ngëneelal guddi gi jàmm moo ci am ci njëlbeen ga ba ca mujj ga te ku ne xam ne nag jàmm ne ko Cheikhul Xadim daan waxe nee na moo gën fii moo gën fële waaye ki ñuy jiital ci suñu cant ak suñuy ngërëm mooy cheikh Mouhamadinil Muntaqa yal na yàlla yokk ci moom xéewal yàlla na yàlla fequ fanam yal na yàlla def xar baax ci aw fanam ndax li ko ñor mooy lislaam li ko ñor mooy tasaare njàngalem cheikhul xadim noonu lañ koy ñaanale suñu maam sëriñ ba Bachir Anta Ñang te moom it njabootam kenn desut ñëpp a ngi fi te ka ci jiitu mooy Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamad Cheikh Mouhamadan dañ koy ñaanal suñu borom sàmm ko moom it lépp lu mu yéene yi liggéeyal waajuru mu tedd ba borom daarul moxti suñ borom àggale ko waaye di ñaanal itam maam Thierno mi nga xame ne moo nekk xalifa cheikh ab cheikh sëñ cheikh Awa Balla di ñaanal képp koo xame ne yaa ngi ci yaa ngi ci toolub lislaam bi ak noo ca nekk rek waaye di ñaanal jullit ñëpp ah, ku ne xam na ne nag danoo nekk ci weer wu tedd di weeru ko nga xame ne ci leen wàcce alquran waaye weeru itam dafa am bis yoo xamee ne ñoo gën a màgg ci weer wi te mooy fukki fan yu mujj yi loolu moo tax ñu tuxale ci saydutna aïcha radiallahu taala anha mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida daxala al ashru al awaaxir mizarahu wa axya laylahu wa ayqaza ahlahu jële toxale naan ci sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa bu fukki fan yu mujj yu duggee ci weeru koor day euh, day euh, day ndigam di gën a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla day takk ndigam di gën a góorgóorlu ci ay jaamu yàlla waaye day dundal guddi yépp da ci daan def i'tikaaf ni nga xamee ne noonu la ko Cheikh Mouhamadul Mourtada roy woon ci moom waaye da daan yee njabootam daawul yem ci boppam da daan yee njabootam ñi daan dundal fukki fan yu mujj yi ci weeru koor ana loolu lu ko waral ngir suñ boroom dafa nëbbu guddig laylatul qadr waaye itam wax ñi sàkk ko ci fukki fan yu mujj yi ndax alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne uritu laylatul qadri thumma ayqazani ahli fa nasituha faltamisuha fi l ashri al nee na suñ borom war na ma guddig laylatul qadr ginnaaw bi ma ko wanee ci ay nelaw sama waa kër dañ maa yee bin ma yee ma fàtte ko ma fàtte bisu laylatul qadr waaye nag na ko sàkku ci fukki fan yu mujj yi kon guddig laylatul qadr dañ koo war a euh, sàkku ci weer wépp guddi yëpp ñi jàpp ne mooy guddi laylatul qadr waaye rawatina fukki fan yu mujj yi moo tax ba sayyidatuna maymuna radiyallahu taala anha nammee nam ma liggéeyal waajuru mu tedd wa di sëriñam cheikhuna ahmadul xadim mu tànn guddig laylatul xadar ngir liggéeyal ko ci ndax ku ne xam ne ne sëriñ Touba fi mu tegoon weeru koor sëriñ Touba weeru koor ab soppe la ko jàppe woon waaye ab xarit la ko jàppe woon te xasidaam gu siiw gi moo ci firnde ndax lam ko ubbee mooy قد استهل رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي شهر رمضان قد استهل علي ورحبت به وسلمت عليه بهذه القصيدة فتقبلها مني وبارك فيها xasida gi nga xam ne mooy yaa xayra dayfin lam ko ubbee mooy dafa déyanteeg suñ boroom ne ko weeru koor day feeñ na tàmbali na yow yàlla sama soppe sama xarit di weeru koor tàmbali na maa ngi koy dalal nag di ko nuyu ci xasida gi may bind kon yàlla na yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla na ma ko nangul te bar def ci barke xasida googu muy xasida yaa xayra day fin ata bil bishri mal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qira taati wa sadadi muazzaman inda rabbi la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rashadi la zilta maaxiya awzaarin wa taarida axyaarin laa zilta maaxiya aw zaarin wa qaadiya aw taarin wa taarida axyaarin min alxaladi wa saafidan kulla sheytaanin bima maahu wa mutxifan li dawi l ixsaani bi safari kon xasida googu cheikhuna ahmadul xadim daf koo bind ngir di ci dalal weeru koor ak di ci nuyu waaye itam di leeral ngëneelam ak màggaayam ak li nga xamee ne moom la làmboo ci ay ngëneel nee na yow mi nga xamee ne yaay ngën gi gan te andil ñu mbégte ak xéewal maa ngi lay dalal jàmm di la wax ahlan wa sahlan di la yaatal yaatal goo xamee ne nag amut ab lim amut dayoo yow yaay ki nga xamee ne doo dan ji nekk gan gu tedd goo xamee ne daf ñuy ziyaare si ba faw waaye gan goo xamee ne lan koy terale mooy ay topp yàlla ak njub yaay gan gi nga xamee ne dafa màgg ci suñ boroom mi nga xamee ne amut bokkaale bokkut ak kenn dara waaye yaay gan gi nga xamee ne dafa màgg ci ñi nga xamee ne ñoo ragal yàlla waaye ñooy boroom xam-xam waaye ñoo am ak njub doo dañ di nekk di far ay bàkkaar waaye di faj ay aajo waaye di dàq seytaane di ko jeng waaye di jox ñi nga xamee ne ñooy rafetal ci weeru koor ay xéewal kon xasida googu noonu la ko Cheikhul Xadim toppe di ci leeral ngëneelu weeru koor kon moom dafa yëmaliwutoon ak weeru koor dara bokk na ci li ñuy nettali képp koo xamee ne danga am ajo danga yàkkamti weeru koor ñëw ba nga dis ko ko ndax bu weeru koor du ci gàntu aajo lépp loo ko diis ci ajo da koy faj waaye màggaay gi nga xamee ne weeru koor màgg na ko li tax mu màgg mooy alxuraan yi ci wàcc alxuraan yi nga xamee ne mooy mooy waxi suñ borom di aw meloom loolu moo tax suñ borom màggal ko ndax suñ borom mi ngi wax ci alquran ne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim nee na maam wàcceel alxuraan ci guddi gu tedd guddi gu bari barke nee na man maay ki nga xamee ne maay waaraatekat bi nee na ci guddi gi ci lay tàqalee lépp loo xamee ne dinaa ko dogal ci guddi gi laa koy dogale kon ngëneelul guddi gi dafa dellu ci li ci alxuraan wàcc moo tax mu am li mu am guddig ñaan moom guddig laylatul xadr ndax ko ne xam na ñaan moo gën a màgg ci jaamu yàlla yépp bokk na ci li nga xamee ne moom lañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ci bu guddi gi ñëwee ni ko sayyiduna Aïcha nettalee kaana ya'muru ya'muruna an naquula fi laylatil qadr allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anna nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañu daan diggal bu guddi gi ñëwee ñi ñaan suñ boroom ñaan gi ñaan gi mooy yow yàlla yaay ki nga xamee ne yaay jéggalaa kon bi yaay ki nga xamee ne yaay bëgg ak njéggal kon yàlla nag ñu jéggal kon loolu dañ ciy déggee ne guddi gi guddi jaamu yàlla la waaye rawatina ñaan ndax ñaan mooy muxul ibaada maanaam bu jaamu yàlla nekkoon jëmm ñaan mooy xol ba li waral ñaan nekk xolu jaamu yàlla mooy day tegtale toroxlu jaam bi ak ñàkkam akuk aajowoom suñ boroom ndax buñ waxee jaam rek foofu la toroxte yam foofu la ak néew doole yam foofu la lompoñ yam jaam mooy ki nga xamee ne amul dara lépp suñ borom moo ko moom kon loolu mooy waral moo tax ñaan am dayoo gi mu am ci lislaam ndax bokk na ci li alquran di wax qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum suñ boroom nee na du am ci yéen yitte du leen yëg duma leen faale bu woon ak ñaan gi ngeen may ñaan julli li muy foor foor ñaan lay tegtale ñaan lay firi assalaa kon guddi gi guddug ñaan la loolu moo tax Cheikhuna Ahmadul Xadim mi nga xamee na lu dul roy yonente bi alayhi salaatu ko woon bëggu ko woon def ci ak xasida goo xamee ne def ci ñaan suñu borom lépp loo xamee ne njariñul àdduna la ak alaxira ci xasida gi mu tudde hada miftaaxu an nasr fi duaai laylatil qadr muy xasida gu gu gu mat di jàng saa su nekk waaye rawatine guddi gii ñu nekk ndax ci xasida gi lépp loo xamee ne am na njariñ àdduna walla mu am ko àllaaxira ñaan na ko ci barkeb guddi gu sell gii bokk na ci lim ci wax rek hada wa in al yawma du istimtaari min alkarimi kullama awtaari ya rabbana bi fadli hada laylati fastur maaibiya wasma qawlati yaa rabbana bi fadli hada alyawmi aslix umuuri wa umuura qawmi xasida gi lam ko tuddee mooy lii mooy caabi ndimbal ci ñaan guddig laylatul qadr nee na yow yàlla maa ngi nii di taataan ci sa tab ak ci sa ak mbaax lépp loo xamee ne aajooy doomu aadama la maa ngi koy taataan di ñaan nga may ma ko yow suñ boroom yow yàlla maa ngi lay ñaan ci daraje guddi gi nga suturaal samay ayib waaye nga déglu nga déglu samay wax li ma lay ñaan waaye maa ngi lay ñaan ci daraje guddi gi nga yéwénal samay mbir ak mbiri ak mbiri ñi nga xamee ne ñoo aji ci man ñëpp kon xasida googu lépp loo xamee ne aajoy doomu aadama la ak njariñul àdduna walla alaaxira cheikhul xadim daf koo ñaan ci barkeb guddi gi kon loolu day tegtale ngëneelul guddi gi ak wàccuwaay bi mu am ci sëriñ Tuubaa ndax moom lépp loo xamee ne lislaam daf koo màggal rek sëriñ Tuubaa daf koo màggal ndax suñ boroom moo wax ci alquran ne wa man yuazim xurumatillahi fa innaha min wal alqulub nee na màggal yi nga xamee ne mooy màndargay diine màggal ko dafa bokk ci ragal yàlla waaye dafa bokk ci màggal suñ boroom Eh, ni ma ko waxee nag ngëneelul guddi gi nga xamee ne suñ borom moo wax ne moo gën junni weer day dellu ci wàcc gi ci alquran wàcc te alquran moo nekkoon cërub sëriñ Tuuba ndax lépp loo xamee ne làq na ko ci ay ngëneel walla ay maqaama nee na ci barkeb alquran la ko làqe bokk na ci lim wax ci alquran kitaabuka diini wa huwa xilli wa muunisi hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi zakka nee na yàlla ndax day mel ne ku jàkkaarook suñu borom buy wax ndax saa su nekk mi ngi yëg nekkuk suñ borom ak teewaayam ak jege gum ko jege saa su nekk rek mu ngi fuglu suñ boroom te loolu nag mooy maqaame bi gën a kawe ci lislaam ndax lislaam suñ boroom daf ko séddale ñett al iman al islaam al ihsaan maanaam gëm yàlla bañ koo bokkaale ak kenn xam xam ne lu dul yàlla rek mbindeef la waaye itam li nga xamee ne mooy euh, lislaam maanaam li mu santaane ci ay digle yoo xamee ne ay cër ñoo koy def nga def ko ni mu gën a rafete te mooy julli woor weeru koor aj màkka joxe asaka loolu mooy islaam waaye nag am na martaba bu gën a kawee mooy ixsaan ixsaan mooy an taabudallaha ka annaka taraahu fa fay lam takun taraahu fa innahu yaraaka maanaam ngay jaamu yàlla ba mel na yaa ngi janoo ak suñ boroom loolu nag bi bu kawee la ngay jaamu yàlla ba mel ne yaa ngi janoog suñ borom ndax ku sa kilifa toogoon rek ci sa wet ndax ni koy Cheikh Abdul Ahad di waxe bis bi dañ leen cee nekkal waaye ñu nag yéen ñépp a ko bokk ndax bisu lislaam la bisu sëriñ Tuubaa la te kenn ku ci nekk ci ñun doo nangu bisu sëriñ Tuubaa di ko bàyyee kenn kon bis bi dañ cee nekkal jullit ñëpp waaye nekkal ci njabootu Sëriñ Tuubaa gépp kon ñi ngi may xamal ne waxtu wi mi ngi wàññeeku ndax dafa guddi dañuy sant ñëpp rek dañuy sant ñëpp di ñaan lépp loo xamee ne def nañ ko ci ay jaamu yàlla suñ borom nangul ñu ko te jotale ko suñ maam ju tedd ji Sayyidatu Soxna Maymunatu Mbàkke yàlla nañu yàlla sàmm képp ku fi andi aajo yàlla na ko yàlla faj yàlla nañ ko fekk ay déwén yu bare bare bare bari te mu jàmm ak xéwal kullu aamin wa antum bi xayr wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh naataytu rabbiya bi sari ramadan sari ramadan wal munaa wal fayanaa